ndax dana wér ñuy qiyaas euh, li ñu tuddee taxdiidu an nasl muy limitation de naissance ndax mën nañ koo qiyaas euh, ci li ñuy tuddee al azl bi amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ci jamono yu saxaaba yi waaye jamono yonent bi la woon itam mu ne daa bëgg ñu wax ko lu wax ko waxal ko ay kàddu yu gàtt ci lu jëm ci tanzimu an nasl muy planning familial euh, taxdiidu lu mooy li gën a mooy li gën a garaaw mooy mooy limitation mooy arrêté njur mi waaye nag euh, dafa am lu ñuy tudd loolu am lu ñuy tudd it planning loo xam ne dañ ko organiser waaye limité wuñ ko maanaam waaw mooy espacement rek mooy mooy loolu euh, ñu xam ne ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu tuddee asl amoon ci xadiisu jaabir ibn abdullah daf ne kunna nazilu wal quraanu yanzil nee na daanañ jëfandikoo asl asl buñ ko waxee mooy nit ki di sëy ak góor ak jigéen di sëy ba àgg ci fi ndox mi war a ñëwee ci ku jigéen ki mu génne cër ba sotti ndox ma ci bitti ngir bañ mu ëmb loolu la ñuy tuddee asl jaabir ibni abdillahi daf ne daanañu ko def ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne su fekkoon ne loola lu ñuy tere la kon alquran dana wàcc tere ko waaye ñu xam ne ci jàng histoire ñoom ban façon asl lañ doon def ak nuñ ko doon defee wér na ne wér na ne asl bi amoon ci jamono yooyu ay jibéer lañ ko doon defal waaye du woon ay jabar manam ay jaam yu jigen yo xam yu yoroon lañ ñom lañ daan defal loolu way du ciage ni seeni soxna yi ñu tak ñu doon seeni soxna jublo am ci ñom ay doom du ñom lañ ko daan defal li taxoon nak jaam yoy ñi di leen ko defal modi l'islam bi mu wacce atte yu bari ci yu fi nekkon daf ko soppi dafa dik wane lu ci yalla santane ndax uh, alquran bi mu li di wacc da fekk ne nit ñi ñi ngi yor seeni alal alal yoy bokku na ci ay jaam jaam yoo xam ne ñoo leen moom dañ leen jënd ci seen alal kooku l'islam te ñëw rek benn bis na leen seen alal yi dañ koy nangu libéré leen lu woon nag parce que seen i alal lañ ca defoon commerce la woon waaye l'islam xotti ay yoon yoo xam ne buñ ca jaaree bu yàggee njaam googu day jeex bokk na ci goreel jaam ku def kafaara sax ñu ne na goreel ab jaam ku def benn njuumte bi ñu ne na goreel ab jaam ba noppi ubbi buntu goreel boole ko ci yi nga xam ne tuyaabam kenn xamul nu mu toll buntu yooyu ci la lislaam jaar di ko def ba jeexal njaam bunt yooyu mu bokk ci nag mooy ku yor jaam bu jigéen boo séyee moom bu amee doom jeex na mënatoo koo jaay umm wala lay daal di tudd moom daal moom moo àtteeb soxla ñoo bokk képp ñoo yam ñu ne ah kon kat man su ma jëndee samay jaam ba noppi jëfandikoo leen doom juddoo ci damay daal di ñàkk sama alal kon loolu lay firi ñi ne kon nañ jëfandikoo benn moyen boo xam ne jaam bi du ëmb te dañ danañ mën a séy moom kon loolu moo waraloon aslu ci jamono yooyu kon xiyaas ko ci lii moom du doon lu yomb mu des nag ki nga xam ne euh, dafay sëy euh, kañ lay saña a soreele am njuram wala kañ lay saña a arrêté am njuram lu ci nekk nag mën naa dem mën naa dem ba sharia nangu ko sax nag waaye ñu xam ne cause bi koy waral maanaam sabab sii tax nit ki saña a soreele am njuram walla mu yemale ko foofa day dellu ci wér-gi-yaram wér-gi-yaramu kii jur muy ko jigéen ki walla wér-gi-yaramu kii juddu su deman ba docteur yu wér yuñ wóolu ci seen diine ak ci seen xam-xam nee nañ ndaw sii dey su dee def ñaari at yu nekk mu mu jur kooku ak dundam xaj na ci ndax gis nañ ci wér-gi-yaramam loo xam ne àttanut loolu ñu ne leen ah lu mu war a àttan ñu dëppoo ci ne daal bu amee ñetti at wala par ñeenti at wala par juróomi at su boba lolu am nañ yaakaar ci moom su docteur ya waxee loolu su boba l'islam da ciy dugg ne leen loolu kon lu baax na njur mi na sore ndax règle générale ci l'islam mooy wattu la fa nekk moo gën di fàggu leneen ba faf li fa nekkoon jóg fa kon ñeneen a sore li njur mi bu boobaa su fekkee wér-gi-yaram su demoon bañ saxal ne kii de bu juratee ba kanam xaj na ca bu juratee ba kanam xaj na ca ñu ne kon bu mu jurati dañ ko arrêté foofu kon wax ji jëpp foofu la yem waaye nag li ñuy bañ mooy ñi jóg pour def loolu jàpp ne askan wi dañoo bari ñu war leen a wàññi wala ñu ne boo yoree njaboot gu bari gi duutoo leen mën a yar wala duutoo leen mën a dundal loolu lislaam xalaatewul noonu lislaam daa jàpp ne nit ñi luñ bari bari bari mën nga leen a yar te pourtant ñuy wax loolu de léeg-léeg dañ lay jaaxal léeg-léeg nga gis ko ne nit ki bu yore juróomi doom nu mu leen di yare te yow boo xëyee soxna si nga ne mënu leen a yar mën naa dem ci ab jardin fanweeri gone mu yor leen fanweeri gone mu xëy yor leen di leen yar di leen sàmm di raxas di dugg ak génn fanweer liggéey ca loola ba ngoon mu ci këram te ni juróomi gone mënu leen a yor ci këram kooku kay defe naa ne waxi caaxaan la te di wax ne askan wi daa bari moo tax dañuy ñàkk loolu waxi caaxaan la askan wi la leen di tax a ñàkk mooy mooy nasax ñàkk a jàng ak ñàkk a ak ñàkk am jom chinois waaye daanaka ñooy genn wàllu àdduna fi mu nekk mas ngaa dégg xiif buñ ne am na Chine Chine mosu ñoo xiif te ñoo gën a bari ñëpp waaye li ko waral mooy dañoo am jom dañuy judd ñu jàngal leen jàngal leen liggéey da gis ku liggéey ba am quatre-vingts dellu ci ay toolam di liggéey amuñu benn waxtu boo xam ne bu ñu fa àggee dañ naan toog kon loolu mooy jom loolu moo war a nekk ci askan wi su ko defee xiif ñu mën cee mucc loolu daal ci gàttal mooy liñ